Gambia's funniest comedy. mbokki Gambia lii di afri chips bi nga xam ne mooy buuri chips yi te nekkal xale yi loolu tax na be afri chips indil leen ñaari flavor yu ees lii di sugar flavor ak cheese flavor neex na am na caf ko te baax na lool si yéen xale yi lii tax na be afri chips isil leen téeméeri ngan may ak juróom fukka pour yéen xale yi lii tax na bépp paketi Africhips bi ngeen ubbi di ngeen fa fekk benn ngañ maay pour bégal leen yéen ñi di xale yi ndax Africhips xale yi la fi nekkal kon xale yi daw leen léegi si bépp bitig wala bépp supermarket bu leen jege te jënd fa lii di Africhips flavor yi ndax Africhips xale yi ñoo ko tax a jóg def nanka déedéet duñ def nanka de lu tax loolu Tilaara flavor drink dafa neex waaw waaw wax ma ci flavor yi ma dégg ah. an orange laa bëgg man mango laa bëgg man pineapple coconut laa bëgg laa bëgg man pineapple laa te tiara flavor drink moo ma sawarloo tiara flavor drink xale yi bëgg nañ ko tey itam mag yi bugga nañ ko ñëw na si juróom benni façon mi pineapple pineapple coconut berries strawberry mango ak itam orange ñu leen ko andil ñii di waa MFH group ak waa King Food Banjul a flavored drink moo fi man may sumay xarit su may am di jàmm kaay leen ma xibaar leen ndax waa basic essential and party supply stores ñooy bitik bi nga xam ne ni dañ jóg rek jóge Amérique indi leen lépp loo xam ne xeeti bagage la rek loo xam ne ni daf koo lekk ñu indi la ko ñu ne nag fi mu nekk ni bépp céréale boo soxla ñu ne indi nañ leen ko ñu ne it li nga xam ne nii nag mooy mayonnaise yeeg ketchup yeeg. You know these ñu ne nag fi mu nekk ni amuñ foofu noonu ñu ne eau de javel yu baax yi ñu nga fa ñu ne it ak li nga xam ne nii nag mooy bagage xale yii nii muy bagage si bébis yi ñu ne leen indi nañ leen bébis wipes ba indi leen li nga xam ne nii mooy refill bi nga xam ne su jeexee rek da ngaa refillal sa boppa ñu ne amuñ ci loolu ñu ne nag yéen ñi nga xam ne da ngeen di bugg a di célébrétal seen doom yi seen birthday party si ñu ne nag bagage boo xam ne nii yëpp pour décoration rek la ñu ne indi nañ leen ko ñu ne xale yi nag duñ leen fàtte mukk ñu ne seen kandis si ñu ne indi nañ leen ko bépp xeeti kandis boo soxla rek muy sweets ñu ne indi nañ leen ko ñu ne nag yéen jeeg li nga xam ne mooy body splash body splash yu neex yoo xam ne nii da nga koo jël spréo ko rek xeet gi jolli ba jolliwaat ñu ne góor ñi amal nañ leen fa seen bagage ñu ne nag fi mu nekk ni ñu nga dendoo fan ñi nga xam ne nii ñooy jaboot laboratoire ba nekk ba Avenue sa Midway Centre ba yow mu jokkoo ak ñoom tey ci 72 78 triple 7 mbite 363 9988 363 99 9988 basic essential and party supply stores ñooy bitig bi nga xam ne ni dañ jógee Amérique rek pour ñëw rek jàppale leen ba baax ci biir kër gi jaaraama waa basic essential and party supply beautiful good evening from the Gambia and welcome to another edition of the Change Maker Show. I am your host, Abdullah Baji, and my co-presenter... I am Fatima Zahra Jalo. Fatima Zahra Jalo, as he said, uh, once again we want to welcome you to this edition of the Change Maker Show. Well, uh, in our topic of discussion today, we're looking at a very, very vibrant child-led organization that has been doing a lot of advocacy regarding issues affecting and hindering the development of young people in the Gambia especially children. To give a brief profile, this is Voice of the Young, an organization that was formed almost 10 years ago, and they're here today so that we could have a brief discussion about what they have been doing since they started